maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu yoonu murit ñépp di nuyu waa Touba ñëpp di nuyu réew mi te bëgg a wax réew mi nag li gën a jafe mooy wax ak waa réew mi waaye waa réew mi toll nañ foo xam ne lu waaye waxanteek ñoom na doon dëgg na doon lu ñu teg seen bët nuy santati sun jàmbaar ja sun jàmbaar jin amoon démb ak bërki démb di dellu santaat sun jàmbaar ja ci yoonu murit wax naa leen ba taay ne murit amul lu du sëriñam ku sagal sëriñam rek jekku nga ko nun murit suñuy yëkkati sun kàddu dañ ko yëkkati ci luñ xam man Modou njaay comme que de maa ngi yëkkati sama kàddu di ko jooyal di ko jëmale ci Ablaye Sylla ndax fukki at ak ñeent ci ren ma sol sama daal Baye Modou yóbbul kër sëñ diw Baye Modou yóbbul kër sëñ diw Baye Modou yóbbul kër sëñ diw ci màggalu Touba mu mel ne mbir ma daal la ñuy wax saawaan baawaan dafa gën a yaatu mu wax ne yoonu murit la wax waaye jullit yëpp la ci boole mu wax ne tàllal na loxoom ak xelam ak xalaatam sukkandiku ci yoonu murit ànd ko ak i bokkam ak i rakkam ak xaritam ak i soppeem fas yeneen liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa yal na ko yàlla na mu wax ne màggalug Tuuba dafa ñëw mu tàllal loxoom ci màggalug Tuuba ba dafa mel ni kii ni bi ci tàllalee loxaam mi ngi ciy am yaakaar ndax liggéeyal sëñ Touba day leble ker rek ñu fay la guddi la sëñ Touba moom am na fay mu tàmbali ko di ci dox ba ci fukki at ak ñeent ba ci gàmmug ren gii mu wax ne moom de lam doon dox jéego yam doon jéego am na ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax gis na ci aw yoon yoon wi mu ci gis mooy wan liggéeyal sëñ Touba de lu jàppandi la ci ku muy doon dëgg ci yow ku muy doon dëgg ci yow ba tax na gàmm gi ren nag. amutub yemukaay ndax defe naa ne ci ginnaaw ah, lu war a mat ñeent fukki camion taxaw nañ dugg ci biir gox yeeg goxaan yi fu mel ne Tiwaawan fu mel ne piir fu mel ne Njaasaan fu mel ne Kaolack fu mel ne Ndar fu mel ne ci réew mi fépp ba Ziguinchor fu fi jàkka nekk wala jumaa rek wala fépp fu ñuy wax ashadu an laa ilaha illallah seydina muhammad rasulullah rek Ablaay tàllal na loxoom ànd ak njabootam ne nañ fa yóbbu te ay teraanga ngir yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu mel ne kon Ablaye Sylla yal na yàlla nangu ñaanal Ablaye Sylla ñu ngi lay ñaanal yow day xaw lu man di xew ëllëg waaye taxawaay bi bin gis nga taxawe ko nun yoonu murit ak jullit yëpp rafetlu nan ko lool am yar am teggin nangoo joxe li nga yor boole kook yar ak teggin tey wii ci ndigal wax dëgg yàlla loolu nun yoonu murit rafetlu nan waaye dana dellu si waat ci biir wax ji wax ci loo xam ne dañ ko waxoon dañ koy waxaat ndax dëgg la ci nun si la yoonu murit ñoo la soxla yoonu murit la soxla waxuma ne yaa soxla yoonu murit de yoonu murit ñoo la soxla ndax yow amal nga njariñ yoonu murit waaye amal nga njëriñ jullit yëpp waaye bi nga amalee jullit njëriñ jullit yëpp amal ko yoonu murit murit dañoo wax ne amul lu dul sëriñam xamut lu dul sëriñam yëgut ku sëriñam boo wormaalee sëriñam rek jekku nga ko man Ablaye loolu nga ma jekkoo da ngaa wormaal njabootug seexu naa seex Muhammadul Xadim ñu ngi lay jottali sa ñaari xarit nag sa ñaari xarit ci biir yëf yi ñu ngi la ci jottali seen kàddu maa koy dégg saa yu ma demee fi moom nangu ci moom na nangu nangu ko ci ñoom sëñ Abdou Karim Mbacke yal na yàlla guddal fanam li muy wax ci yow ak ci sa rakk jii di Baye Sall day wax dëgg yàlla rafetlu naa ko ay jàmbaar ngeen de waaye da ngeen xam ne jàmbaar day yàgg naa am ndam da am ndam loolu sëñ Abdou Karim moo ko wax baay Sall sa rak mu ne na la ko jottali ay jàmbaar ngeen de Sall neel Ablaye ay jàmbaar ngeen de waaye jàmbaar de yàgg naa am ndam loolu it danaa ko ci wax ah kàddu cant yi bari na yaatu na lool ku mel ne Cheikh Oumy Mbacké ku mel ne sëñ Mourtala ku mel ne ku mel ne sëñ moodu moom sëñ Saliou mënuma ko lim ku mel ne Serigne Djili Mbacke moom Cheikh Moustapha Falilou mënuma ko lim yoonu murid day ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal lépp loo yóotu nga jot ko ci jàmm di la ñaanal it nga amuk mucc texeeg tey ak ëllëg di la ñaanal it wërsëg wu barkeel woo mën a liggéeyalee seexul xadim ak njabootu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam أو بي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لان ولسان نعم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا liggéey bi ñi ngi koy wéyalaat nii fi ñu toll nii gis nag yi sama gannaaw xewal yi muy président Abdoulaye Sylla yónni waat ñu ñu ñu wéyal liggéey bi tey ku gis xéwal yi nekk suñ gannaaw muy yéene ji mu am ñu koy continuer di wéyal fépp foo xam ne tàntal nañ fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi nag mu tuddee ko cantu sallallahu di ngeen di mbindeef yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne képp ku ñu bind rek ci mbaaxam ak ci leeram la la yàlla saa borom bindee muy lu miin nag cant moom mbiram la président Abdoulaye Sylla lu miin a miin a miin miin lay def ba tax na liggéey bi day daan di wéy cinquante nag yi nekk sama gannaaw moom lañ bëgg a def ci camion bii wéyal liggéey bi mu dem ba ba jàll ba Thiès ci jëwrin yu mag yaa fa ne fépp fu nga xam ne ni tàntal nañ fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal am na yéene yóbbu fa ay xéewalam njaarim tamit dañ fay wéyal liggéey bi am na téeméeri nag yoo xam ne nii dañ leen di yab ci camion yële jëmale ko njaareem mu mooy nag yooyu ñooy dem ba Kaolack Medina baay fépp foo xam ne ni daal tantal nañ fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéeneen ji dana fa ak bu soobee yàlla ñaanal le président Abdoulaye Sylla ñaanal la boppam ba pare nag dañ koy ñaanal li nga xam ne nii ñu ngi koy waaj a sëmb muy présidentiel yii di ñëw man moom ci laa koy fas te xam naa ne am na yaqin na lépp luñ lu ci waay fas ci bis bu sell bii ak liggéey bu rëy bii mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa du ma ne nit liggéey na ko senegal de waaye <laughs> lii mu fi jëf nii day dëgg yàlla man de ba ma juddoo ba léegi gis mosuma gis ku ko fi jëf ku ne nag sa tolluwaay ngay waxee waaye li ma gis mu koy jëf man de ba ma juddoo ba léegi mosuma gis ku koy jëf ñett téeméeri nag ak ñaar fukk yi ñu fa yóbbu woon démb cinquante tête de bœuf cinquante cinq tête de bœuf yu ñu fa yóbbuwaat maanaam cinquante cinq nag yoo xam ne nii jot nañ ndigal war koo chargé waat ci camion yii taxaw jëmale ji ko waat ba Tiwaawoon muy cant goo xam ne nii da koy dolli cant maanaam liñ naan wax dëgg yàlla mu ngi ci yoon wi fépp yéene gi mu am mooy fépp foo xam ne tàntal nañ fa yonent bi sallallahu alayhi wa mu mu mu wane fa boppam te fépp foo xam ne ni tàntal nañ fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fay wane boppam lii firndeel na ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ñu ngi ci yoon wi ak yeneen yuy waaj pour pour dem ba tax na daal yéene ji benn la kaddu gi benn la yàlla na ko saa boroom defal sahaadatu daare bi li nga xam ne nii yéene na ko ci jëf ju mag jii mu def li may wax rek Sénégal moom ku ne jëf na fi waaye jëf jii mu fi jëf day man de ba mu juddoo ba léegi mosumaa gis te ñu ngi ko ci ñaanal di ko ci fasal li nga xam ne nii ñu ngi koy yóotu muy élection présidentielle 2024 yàlla saa borom defal ko ci njàppandal te am nañ ci yaakaar bu kawe kawe kawe bu dee jëfal waa ju baax rek tax mu am ko moom bu soobee Sëñ Tuubaa dana ko waaw ndax xam nañ yaqin ne kenn gënu koo jëfal yi waa ju baax jëfal nitu yàlla jëfal ju baax jëf ci yoon wi jëf ci diiney lislaam amul ku ko ci man ci kaw suuf jërëjëf kitaabun majiidun min majiidin mumaddidin li abdin majiidin lil kafuuri yadiiru